di ñaan alaaji Sidi Lamine Niass yàlla na suuf oyof ci kawam mhm. yàlla na wàcc waayam nekk àjjana firdawsi amiin lii mu fi bàyyi muy flambeau boo xamante ni ca kaw la jëm yàlla xam na ni yëkkati ngeen ko te yàlla bu mu wàcc ba mukk ci barke yonante bi mhm. déedéet sañu nu ko ëf kii lii wal fajri kenn sañu ko ëf déedéet déedéet APR masu ko ëf APR APR masu ko ëf fayoon ngeen ko fi weer déedéet masu ko fay <laughs> moo su ko fay c'est-à-dire cest gis nga àdduna moo bëree problème rek ça mais ku xam président Macky la waaw dëgg xam ne xam ne xam ne xam ne du du koy fay war ay pikiiru ndar ndar ba muy jaay jaay xam ne du koy faytaal du fay du du du koy faytaal ah. waaw Sidi nag li mu fi bàyyi hmm. leer la goo xamante ni ca kaw la jëm hmm. ah di ñaanalit koo xamante ni comme ni ko Umar waxee léegi sama mbokk la ndax ñoo man war ak mooy sama cosaan ci sama côté yaay. moom mi ngi dëkk njëre yi muy Cheikh Baara Ndiaye. Euh, sunu dëkk ak sunu dëkk yi mën nga ko dox. Mm-hmm. njëre waqi ga cosaanam bàyyi ko. ak war ak mën nga ko dox. kon bu ma toogee fii euh, xam ni sama mbokk la war naa ko ñaanal tiis gi mu nekk yàlla génn ko ci. te li muy def lu lu lu mu xam la lu mu donn la. Cheikh Baara baayam danaan wax ak ay ganaar. Mm-hmm. papaam bu mosaan jóg. géttu ganaar a koy topp. géttu am na benn góor gu ñuy wax Serigne Ahmed Jaxate mm. moo toogaloon Serigne Saaliwu Ndar mm. moo fa toogaloon sëriñ Touba bi da di di moo mm-hmm. paa boobu bu mosaan ñëw Ndar bu masaan ñëw Ndar mm. paa boobu bu mosaan bu mosaan ñëw tuubaa Daaru Xuddoos bu ko pàppay Serigne Baara Cheikh Baara mi si gisee du demati day ñëw toog si wetu paa bi ganaar yi danuy bëgg ñëw ba ci fi paa bi nekk paa bi dafay wax ñoom eh, eh, toog leen ne ginaar yi papa yi Cheikh Baara laa la wax. Mm. yi toog leen ne. ginaar yi toog ginaar yi toog. am na si benn seex bu makaat dafay insister paa dafa eh, bu fekkee da nga yàkkamti nga dem nga ñibbi ganaar gi day jóg mën na ku woo yeneen ganaar yëpp ànd ak ñoom wàññeeku. Mm. waaw <laughs> jërëjëf Cheikh Baara nit ku nit ku màgg la dafa doon xam-xam. kon tiis gi mu ne yàlla nag si mm. yàlla jëlee. ci daraja yonante bi sallallahu alayhi wa sallam barkeen maam yi nu am yëpp. ndax ku xam suñu cosaan xam ni ah. bégal nu moo gën tàngal moo gën wóor ngay tàngal suñu xol. Hmm. jërëjëf El Hadj Babacar Mbaye am na histoire bu neex boo xam ne bu dee kër Thiabar la la koy nettali. Hmm. papaam ak bëy ya. ak bëy ya jërëjëf paa bi wax ak bëy danaan ngi noonu kon euh, li li nga def nii. Hmm. dafa rafet. parce que dafa bokk ñoo xam ne ñu ngi bokk ci mouvance présidentielle bi ànd ak Macky ñoom danoo jàppee politique non alors que du non am na tey ji lii mun na ci ban a fekk. Mm-hmm. waaw mais au moins yow. jiitaloo politique seen diggante mais balaa politique am na lu xewoon. Mm-hmm. tey ji nga indiwaat lu mel noonu même boo partagé wul ak moom yenn avis sax. Mm-hmm. mais rafetal nga ko ba mu rafet. mais boo gisee yenn nit yi. nit xiifal wala nit nekk ci xat-xat ñu nekk ci réseaux sociaux yi di ko yéene. yow loolu nan nga koy dundee maanaam bokkuñu position politique mais waaj bu nekkee ci kaso sax wala mu nekk ci xat da ngay gis ñoo xam ne dañ ko koy yéene sax ba di ko gàngaal dee. Omar gis nga Sénégal gii ñu am tey. Mhm. ñun ñëpp dañu am part de responsabilité li fi xew. surtout maa nag yéen ñi yàlla may opportunité. Mhm. chaque jour ngeen toog ci télé. Mhm. war ngeen xool bu baax ñi ngeen di invité. ci wàllu wax war ngeen xool bu baax ñi ngeen di laaj. parce que Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum radiyallahu taala anhu dafa waxoon. réew bu demee ba ñëpp di wax noppi moo ci gën ndax boo noppee mucc mu ni te léegi fii ñu toll koo gis rek am na lu mu këpp ci ay noppam léegi kon li nga war wax lan la yow ndax ñëpp a ngi déglu léegi kon ñan ñoo war wax loolu benn problème la te tamit dafa mel ni dafa am benn feebar boo xamante ni yéen waxuma leen yéen seen plateau bi plateau bu am maanaa la mais dafa bëri léegi émission yoo xamante ni caaxaan kese moo ko lal ak ñàkk warmal nit ak xaw yi suturas gor ak wañ ñaaw ñaawu nit loolu nag moo nuy dugal fii nga foofu nga wax noonu bokkoo ak nit kan rek yéene nga ko ba yéene ko mu dee maari demisi bokkoo ak nit jimtuwaay rek donte sa mbokk la da ngay mel ne ku ko xamul te Sénégal xamewun aada yooyu Sénégal rafetal lañ ñu xamal suturaalante fonkante lépp ñu def ko te yàlla kese tax. Mhm. dara bañ ko lal. Mhm. mais dafa am yu nu dugg yu nu dugg nag ñun tamit ñoo ko teg suñu bopp. Mhm. parce que da ngay gis koo xamante ni dafa dem ba màgg rek wuti ñu bees. ña amoon ña ña maamam amoon ñëpp mu wañ wàcc leen sànni ca gannaaw. ña ña doon toppante ak ay waajuram yëpp mu wàcc leen sotti sa gannaaw. léegi moo waral ngay toog ba mu yàgg nga dégg ñu ni la diw. kilifa gu mag la mais enregistré na diw xam nga réew mi dañuy gaaw a fàtte. Mhm. te ñun ñi tamit ñun ñëpp ci am part de responsable faaw ñu delloo si waat nit ñi ngor ak cosaan ak éthique. Mhm. parce que tey fi tey yow mënoo nekk. Mhm. juddu ba toll ni nga toll masoo doon dara ci sa àdduna. benn nit nommé la directeur wala ministre wala soit disons lenn daal bi maanaam. nga nekk ku ko jege. fekk yow heure boo wéetee. yaa ngi enregistré kooku ay waxam yu nekk sikk wala ay bêtises yoo xamante ni bu subaa mën nga ci centre otage. Mm-hmm. loolu bi muy xew fii. Mm-hmm. président Macky ñëwul ci réew mi Idrissa Seck moo ko fi njëkk def te def ko Ablaye Wade. Mm-hmm. muy nit ku ko defal façon teraanga bu ne. jikka lu ne. mu dem ba naan soo waxee léegi ma de wax génne li nga wax ci Serigne Saliou li nga wax ci Serigne Mansour. Mhm. mais yéen ñii tamit amoon ngeen ko. léegi yo yooyu yëpp nag. sa ma baal ma baal ma ma daal dama laa bëgg a. non dama bëgg ñu dellu si waat ñu dellu si waat. ci point de nga jëm nii yow fi mu toll nii. Mhm. Euh, te loolu duñ la ko fi may. Mhm. Euh, saay li ngay wax nii di mel ni kuy waaraate Mansour fay mos na fi wax Ousmane Sonko lu jëm ci wàllu kii yooyu. audio Mansour fay lii xanaa waxoo ko ko. defal ndànk ba wax la gis nga. Ah, saa saa yaa wax dugg sa bopp di guute ay da ngay dugg da ngay dugg fi sa bopp xam nga yow. mënul ba pare te audio bii du ñëw yaa fi dugg ci ah, audio. non mais damay wax. nga fii. waaw du chance su ñëpp. waaw du ñëpp fii toog. waaw kon bu la yàlla may opportunité nga ñëw fi toog. da ngay wax. li nga xamante da nga siy duut baaraam. waaw mais léegi dama ne pour nit ñi dellu si waat gannaaw. dama ne dama ne yow. pour nit ñi xoolaat seen bopp nit ñi xoolaat jegewoo Mansour fay ba mën koo wax. Mansour Faye pour mu dugg ci terrain boobu. dama lay wax nag. tey nga xam benn yëf. waaw mhm. mooy nit ku kenn mënul joxañ si dara. Ah du sax du sax tontu li nga koy waxal asumalaak di waxal nit lu ñaaw li ko fi buggaan waxal rek. mbugaan day sos rek mbugaan. mbugaan eh. mbugaan mbugaan mbugaan ñun ñu dëkk ndara xam nañ ko bu baax. ay mbokk na ay ay mbokk naaram yi nekk ñi daaru ñoo ngi bi ñu man mii la ñu consulter pour maa leen man may. moustiquaire imprégné maa leen war defar reboisement mbugaat ñun xam nañ ko ñoo bokk suñu gox am na lu bëri nag luñ ko war a luñ ko mën a tontu mais xëy na dafa yellul ci doomu ndar nga toog di xaw yi sutura si nis ki ak naan def na lii wag deful lii wag yaayam lii wag papaam lii wag magam non non moom duggul ci wax ak yaay eh, ay bàyyi moom dafa dugg ci loo xam ne mbiri koppar yi bari jëm ci loolu day wax rek Ah, mais mais mais réew mi yéen yéen yéen yéen yéen yéen ay journaliste ngeen xam ngeen li xew ci réew mi. Hmm. loolu bu fekkoon am na balaa koy Bougane di wax keneen ñi ñenn ay presse yu prélaté ka. Bougane journaliste la. mais Bougane wax pour xam nga àdduna. non mais journaliste la. mais kenn porté wu ko plainte kenn yóbbu ko ci wax na wax que ma Mansour xam na xam na li mu ci bëgg. lu mu ci bëggoon mooy victimiser wu Mansour du ko may ñun ñi nga xamante ni ñoo bokk ak moom suñu ndar bokk benn gox ñoo koy defanteeg moom ba mu réglé. waaw ah. te te te musul musul woon na baat parce que ay journaliste toog nañ fi di ko poser ay question mu ni soo ma ko waxaatee ma porté la plainte lan moo tax mënul woon Bougane bi mu ko waxee loolu mu dem porté ko plainte aussi. waaw non defal yaa ngi nii duggati xam ba dafa janoog moom. waaw wax ka ni que lii nangam. mu ni ko bu ma ko waxaat lu Sénégalais yi tëj. Bougane Bougane Bougane Bougane Bougane li muy wax bul yàq turu jàmbur bi Bougane. nga naan li muy wax Bougane man intéressé wu. waaw moom intéressé wu man euh, sama émission bi bëgguma ñu. concentré ko ci Bougane. waa d'accord léegi le fait le fait le fait le wax ci loolu Oma. bëgguma ñu concentré le fait wax ci loolu alors que ay nit buñ koy laaj ci dara sax. Mhm. mu ne la boo ko waxatee ma porté la plainte bu laa Bougane waxal ko loo xamante ne nii ñëpp teg nañ ci seen bët. non non yow yow da nga teg sa bët. non du question la teg sa bët de Bougane moo ko wax ñëpp dégg ko. waaw jërëjëf. waaw loolu laa wax da ngay dégg wax nag yomb na. te tey bu ko porté woon li xew àdduna bi yëpp ñu naan diw léegi mooy favori mooy kii Mansour doful Mansour nit la ko ànd ak xelam xam na ni réew mi ay genre mbugaan ngay yore seen rajoog seen média di wax rek doo ma may yenn popularité yi ñu waaw non waaw non ba pas média rek waxuma média rek mais comme genre mbugaan ngay yi nga xamante ni dañuy jël seen euh, média pour def seen bopp euro. mais yow dafa mel ne da nga bëgg a wax Bougane deful dara waa Ndar quoi parce que yaa ngi wax moustiquaire yi ngay def ak nii nii. Mm-hmm. non mais moom ma Bougane deful dara Ndar. Bougane bu eh, li muy li muy li muy mais Mansour Faye Ndar parce que looloo tax sax ñu sanctionné ko. ma ci élection yii ñu génn. no dañoo sanctionné bu baax a baax ki nga xam ne mooy. Mansour Faye waaw waaw kay bàyyi très bien xam nga saa. Euh, mm-hmm. waxtaan bi bu nu bëggee mu neex rek. faaw ñu bañ ko sorxo sorxo mm. aywa ñu ñu teg ko à terre ñu waxtaan mu set balaa teer man man man man man Mansour Faye waaw avant élection député yi mm-hmm. invité nañ ma 2STV yi dama wax ouvertement day perte bi mu ko déggee daf ma mere mais bu tey doon tey dama koy waxaat mm-hmm. parce que nit bu ngeen dee ànd mm-hmm. doo toog ba mu perte nga ni ko xamoon naa ko da koy waxoon naa la ko parce que ndar dëkk bu mag la du da ngay jël ñetti nit rek ñu wër la wër te lépp lu nu am yow la nga leen di defloo di leen dindiloo ndar di la ci bàyyi mais élection député yii nii moo doon génne Mansour ba président bu ko bëggee def président assemblée kenn du ni ko déedéet moo ko doon génne ba bu ko bëggee nommé premier ministre kenn du ni ko déedéet te de mënoon na gañe ci élection député yi mais nag bu fekkente ni politique ñoom bi ñuy def dañ ko teg ci cadre xam-xam teguñu ko ci politique politique politicien bu boobaa daanu sonn ndax politique xam-xam moo koy def du ay diplôme. pour yow lu ko loo gisoon ba ne ko da perte. loolu loolu rek nga gisoon maanaam ni nga xam ni. non ñetti nit yi mu ànd xanaa ñooñu ñoom dañ laa gën a jege Mansour nga mere leen. non mere man du ma mere kenn. mais Mansour dañ gars yi dañ ne li tax ñu sanctionné ko dafa liggéeyut ndar. saa la ñu wax gis nga ndar tubaab bi. bi mu koy defar. dafa am fu mu yam ville la defar. bi sunu maam yi ñëwee ku si mel ni maam Cheikh Aji Rawaan radiyallahu taala an ñëw créer ay quartier comme quartier bi sama mbokk wax léegi lew na. mu nekkoon dex mu sëkk ka tabax fa jumaa ndax si ndigalu Cheikh Seydi Aji Malick radiyallahu taala anhu bi mu ko defaree noonu quartier yooyu bu masaan wis rek da ngay gis fépp ay inondé. Mansour fay quartier yooyu tey amul boo foo fay demati te doo fa fekk fépp mu talika bu fekkee nag dañuy wax liggéeyu liggéeyu nit ki war nu ko seet ci ay may na ma lii wak defal na ma lii dañ koy seet ci moom na fan la fekkoon dëkk bi ak nan la def dëkk bi moo waral mu gagné local mu mhm. législative ñu gagné ko parce que yow explication yi nga bëgg a joxe mooy mhm. euh, euh, local mhm. opposition bi danoo tasaaroo woon waaw ànduñu woon. waaw ñoom Marito ak ñoomin seen mhm. mais bi ñu ñëwee ci élection législative Marito dafa fekk si waa Yewwi mhm. Sonko aussi itam ñëw battre campagne foofu. Mhm. kon ànd bi ñu ànd. ak présidence su Sonko moo xañ Mansour fay Ndar. ak taxawaay bi ñoom Aba Mbaye amoon ak ñoom seen. déedéet Mansour li ma li ma ko waxoon. Hmm. li ma waxoon. Hmm. mooy dama ni kat yow da ngay teel a pare sa bopp. parce que élection yi nga jëm soo ko gañee hmm. président Macky Sall. bu la bëggee def dara kenn du la mën contester ndax Ndar dafa bokk ci les grandes capitales capitales régionaux nekk ancien capitale de l' Afrique centre euh, Afrique de l'Ouest mhm. ah pré nekk nekk nekk nekk. Ah, nekk palais palais yow yow législative escalier la woon pour moom pour que mu mën a laaj réew mi. pour Mansour mën a laaj réew mi. Ah, mais mënul ne te te te waxu te te man wax naa ko ka nee naa nee naa ko président Macky Sall mii. du du du déposer candidature am deux mille vingt quatre. boo ko tegoon. no man man doomu mag laa sama papa ko jóge woon sëñ Babacar Sylla waaw am na loo xamante ni. Ah, xam naa mais yow li nga doon digal Mansour mais buñ ko def. Mansour bu ma bu fekkoon mi ngi may déglu. Hmm. heure bii kenn waxatul ay waxam. kon yow réew mi da nga ko war a affaire famille nga ko def déedéet du mbir famille Mansour doon góoru Mansour. foofu. xam nga xam nga du mbiru famille. ndax lan moo tax du mbiru famille. Mm-hmm. politique ki gañe la soxla. Mm-hmm. bu fekkee yàlla dimbali woon naka tey. ah bu doon bu doon ki gañe la soxla est-ce kon Amadou Ba mi moom kon est dina. Euh, tëdd di bëgg dënam parce que parcelle gagné ko. non te moom mi ngi wëndeelu. très bien moo tax ça jërëjëf si lii fi nga dugg nii. Ah. gis nga amadu Ba. Hmm. Ablaye Diouf Sarr. Hmm. Aly Ngouille Ndiaye ak keneen ak keneen ñoom ñëpp. te loolu Ali gagné na Linguère. waaw Ali gagné na non Ali gagné na Linguère. mais Linguère boo koy comparé ak ay ndar yi ak Dakar yi du benn. <laughs> dafay mel ne da nga ne Angleterre ni Pompiteer. Ah, non dafa de saa. waaw non non El Malick da ko doon da doon dox ci kawam sax. saa ah, saa ah, gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga nda gis nga ay Amadou Baye. ak ay Ali Ngouye Abdoulaye Diouf Sarr. Hmm. ak ñeneen ak ñeneen. ñoom ñëpp li leen war. mooy delloo président Macky Sall njukkal parce que ku nekk président defal na la lépp lu la war si yow nga dem bi nga ñëwee dañu fëgg sa diggu gannaaw te heure bii nii Amadou Ba laay adressé li may wax directement. Hmm. moom président Macky wàccoon na ak moom ba mu ko nommé première ministre. moom moo war a ubbi dënnam yaatal fiitam am fullaak personnalité dugg ci terrain bi liggéey li mu war liggéey. parce que président ba mu ko nommé premier ministre la wàccoo ak moom man bu fekkee damay wax président nomeel tànnal duma ko wax na tànn euh, euh, Amadou Ba. Ah. parce que tànn na ko ba pare. bi mu ko tànnee mooy ba mu ko nommé premier ministre léegi li ko war moom moom mooy mu xuus dugg ci terrain bi. mais xuusul. xuusul mais li lim def kafrin korog gisoo non tojul fenn ay kafrin yooyu du du dara. <laughs> gis nga damay yow dëkk dëkk yi ngay jéem a ah, tuutal ah parce que c'est ça yow pour yow mooy mooy naan ay Kaffrine dara kii du dara dama dama dara foo ko teg yow ça damay damay damay gërëm ah. damay damay damay reveniral président Macky Sall di ko wax na delloo si xelam hmm. na woote waat fameem APR cosaan yi affaire cosaan. Ah, waaw loolu affaire cosaan mu am na na na cosaan na cosaan moom mooy du yàgg te affaire yàggul. ñi àndul ak Amadou Ba yëpp li muy wax la ñuy wax. man ànd ànd na ba ñu ma ànd ak Amadou Ba de. Hmm. Amadou balaa laa àndal parce que déggoo li ma la wax. Hmm. président moom daf ko nommé premier ministre. ko tànn ba hmm. mais moom moo war a xuus eggale boppam fi mu war a egg. Amadou Ba Amadou Ba war na am fu ne link. Amadou Ba heure bii mais tey jii ndigalu président lay xaar. Ah, non ah, ndigalu ndigalu président ndigalu président. Hmm. mooy ba ko président nommé premier ministre rek moom actuellement ni moo war dalal xelu président. Oh wan ka ni ka attan naa. Hmm. attan naa lii nga ma yenn. ku mel ne tey Aminata Touré. Mm-hmm. man damay wax président Macky naka woowaat. kan. Aminata Touré. Aminata Touré man men. men. di tax nga wax ne président woowaat ko. non parce que nit la koo xamante ni ku am ubbeeku la ba pare ku am vision la. Aminata Touré. il est le premier ministre boo xamante ni bi mu nekkee premier ministre toog naa émission nii def émission ba pare tak Aminata Touré woolu ma recevoir ma këram kooku am na vision wu jàppale président. Ah, ndax da laa jox paas. non non joxuma eh, dara. déedéet joxuma dara. paas la. saa fi mu toll nii ku la jox paas dañ nga ne nañ koo. saa man man man man ñoom ñi ñoom APR ndar yi may dégg. par commençant ci Mansour fay laa lay wax ne. Hmm. xam nañ ma bu baax ni duma koy laaj. xam nañ ma bu baax nit ku am ngor ak fulla laa xam nañ baax ci li lay téye parce que léegi bi ma déggee da ne yow kontaanatoo si si si si APR li tax mënatoo see génn parce que dañ la jox billet Makka moo tax jox la xaalis moo tax mënatoo non de defal naa defal naa ma jox ma jox xaalis de non am na loo xam ne yéen tamit émission lool joxu man man man li tax mënuma bàyyi APR. du sama diggante ak sama diggante la ak Mansour Faye nitu kàddu laa am na lu ma wax ak moom loolu ma wax ak moom moom laay sauvegarder moom nag bu fekkente ni am na ambition politique. am li mu bëgg xam fi mu war egg. li mag ñi daan wax ala am maretu lay génn mm. nee na lu la yomb nga fawe ka mm. te politique ku ci rey sa bopp dee te mm-hmm. ku ci rey sa bopp de ah, actuellement nii ñoom li nu amee xamuñu ko APR mm. li nu am xamuñu ko mm-hmm. muy nguur gii nu am xamuñu ko balaa ñu koy xam ñu ñàkk ka léegi nag balaa ñu koy ñàkk man mi nga xamante ni ci laa bokk mm. ngir même du caageenu li ma ci am wala lu ma defal mais xëy na sama ngor ak sama kàddoog si Mansour tënk na ma ba maa ngi ci biir dama leen di wax teel leen fagaru fexe delloo président Macky Sall njukkal ndax lii ko yàlla terale ci ay xeetu njëkk ak teraanga ba muy ba ba ba il est le président sénégalais boo xamante ni moom kese moom nar organiser ay élections yoo xamante ni du si bokk. mais est-ce que APR seen yéex a tànn candidat bi nii est que nekkul nii Macky dafa amul mbër mu wóolu. wóolu waaw parce que wala amul temps parce que dans six mois ñu dem. élection te gisaguñu candidat APR. xam nga Umar Macky Sall. Hmm. tànn na ba pare mooy Amadou Ba mais Amadou Ba moo matul kilo. matul kilo moo matul kilo. Amadou Ba matul kilo. moo amul niveau. amul niveau kon léegi président Macky bu fekkente ni tànnaat war na ka faaw mu jël temps. ah parce que yow ba mu la nommé premier ministre. yow nga war a am fu ne link link yooyu doxal parce que actuellement nii. mais ah est-ce que nekkul ni link yaa ngi commencé doxal parce que dem na fële. Euh, Kaffrine ah, ca nawetaan ya non mbir mi du Kaffrine. loolu link la na nawetaan léegi bu dul Amadou Ba kan la yow. mbir non man bu dul Amadou Ba man bu fekkoonte ni damay tànnal président Macky dama koy wax Mansour tànnal Mansour Faye. Eh, eh, eh, kii Babacar. waaw non dégg ma déglu ma wax lan déglu déglu ma wax la. ma ma ah. Mansour Faye moom bu ngeen koy tànn di perte. Ah, non tax ñuy perte moom bi ah, ñuy parce que euh, Sénégal ci boppam dafa am nu muy doxee looloo taxoon président wax ko na ko. demal nga toog bi mu tàllalee mu ne ko yow demal toog parce que Sénégal dafa am noo xam ni mënuñu nangu. Euh, xam nga ñu ne président tànn na gorom loolu rek baaxut ci nopp kii. Mansour looloo tax sax war na yëkkati loxo. xam nga xam nga xam nga nag. gorom loolu baaxul xam nga nag xam nga nag Sadio. man euh, damay sant yàlla. waaw nooy sant yàlla li tax may sant yàlla mm-hmm. man damay wax li ma sentir. te tamit li may wax dama li nga baaxul. te tamit li may wax dama ciy seet sama digganteeg yàlla. Mm, mm. Mansour Faye bu fekkoonte ni bi ko président joxe ay jàjj. am na taxawaay bi mu war a am. Mm. mais du président moo koy tànn. sénégalais ñoo koy tànn. Mm-hmm. tey fi tey Mansour Faye li ko li ko li ko war. de ah, sans waaw moom nag honnête na parce que wane na ni Mansour taxawut ni mu war a taxawee. non man du man man eh man man man. yow mi li may wax yow sa politique bi du dem ci APR. booy boo nga dem beneen parti. parce que d'accord amul problème. mais yow sa politique bi dafa mel ni amul caaxaan. xam nga lu xam nga lu ma xam nga lu may <laughs> xam nga saa xam nga lu may rus. waaw bu subaa. waaw bu lépp jeex. Mhm. ma gis leen rus. Ah, man leer na ma ni leer yàlla. Mhm. Mansour bu fekkente ni am na benn nit bu ko bëgg. man la te bu subaa bu lépp jeexee. bu fekkee am na ku muy gis du ruus. man mii lay doon. su ma koy gisee du ma takk weer dama koy xool bët ak ngeen gëj a gisee. bon gëj nañu gisee gëj nañu gisee xaw ma. dafa am ñu bees wala wala dala wan ginnaaw. non dafa am nañu be ah Mansour faaw mu am ñu bees nag Mansour kilifa la. Mhm. mais yow dafa mel na militant militant bu. parce que yow xam nga jàppale nga ci lu bëri. non non jàppale parce jàppale naa ko ci lu bëri. waaw mais war na la gëstu. bokk naa ci ñi nga xamante ni ba mu lancé ndar set wecc. Mhm. man dama jóg taxaw créer association mooy mouvement ADL boobu ngay dégg. Mhm. Mm-hmm. chaque quinze jours ma def set setal. dëgg la loolu moom laa ko doon dimbale te boobu ñëwagul sax ñun yoree meeru ndar. ma koy def yàlla di ma may ay opportunité yu yaatu ba ay tubaab jóge ba Belgique ñëw defal ma consultation gratuite. Mhm. may ma boîte pharmacie quatre cent mille. Mhm. ma yóbbu ko école ba ma nekk sama ca gox ba. chaque année damay am ay partenaires yu may may ay moustiquaires imprégné mhm. yooyu yëpp dama koy sant dama koy sant yàlla mi ma xam mi nga xamante ni moo ma may inspiration ba may jàppale Mansour ba loolu mën feeñ si man mais bu fekkente ni tamit nit yaa ngi ànd ak moom te dégluwu la du da ngay du da nga koy forcer ni ko force da nga may déglu. Mhm. mais du tee da wax li nga war a wax. dëgg la waaw léegi ndax bu lépp jeexee. gise mën am. mais seen échec est-ce que seen échec ndar. Euh, lu koy dëggal du xale yi napp gi doxatul ndar. waaw ba boo xoolee ndar seen activité li ci ëpp ci lu doon doxal napp la. tey jii ñi naan napp ñi ngi mbëkk gaal yi di dem tugal mm. est-ce que bi nguuru Macky Sall échec biir Ndar parce que Ndar sànq wax nga ko mm. dëkk la boo xam du dëkku ñaxtu mm-hmm. dëkk la boo xam ne nguur la mës a jox bopp mm-hmm. loolu tax législative bi ñu ko ñàkkee ma ne am na luy xeeñ Ndar quoi mm-hmm. am na lu commencé di fëgg bopp yi pour nit ñi di yeewu euh, mais est-ce que li xew nii ak mbëkk gaal yi est-ce que dëggalul ni da ngeen échec biir Ndar Umar mm. xam nga échec bi am ci Ndar sax si nguuru Macky Sall bi am ci dafa dafa yàgg ci ndar te war warul woon am ndar ndar am na suuf su yaatu ndar am na ndox mu bëre gis nga tey fi tey man président Macky bu fekkonte ni may na ma temps si boppam sax ma toog ak moom man ma dimbali ko ci xel ndax kaso bii mu def fii cent mètres ah. place bi mi ngi biir centre ville place bi mën na mën na jural état wu Sénégal ay ay rendement yu bëre mais jeexal na prison bii mu génn ko dugal ko ci àll fuuta bi hmm. xale yi nekk di chemin di taxawaalu yëpp nga jël leen former leen def leen ay pénitencier ñu garder prisonniers yi àll fuuta bi ba feeba mhm. ndox la ba ba ba ba Mauritanie ndox la ak ak ak suuf mhm. ñuy bay te du tee prisonnier buy génn sax nga am loo ko ñamal mu yóbbaale ka mm. gis nga réew li koy doxal du caageenu ñun ñii dëkk ci réew mi ñoo koy investir ak di ko ak nga teg ka suñu kaw réew mi loo fi mën def da lay mujj bañ ndax du ñu gis seen bopp ci réew mi. Mhm. réew mi li réew mi li koy doxal. mooy wa yi ñëw ci réew mi ak ay vision yoo xamante ni dafay tax bépp doomu sénégalais bu yeewoo am fu mu mën a xëy bay fa boppam. macha allah macha allah voilà. El Hadj Babacar Mbaye mhm. waaw ñu bàyyi la nga tàggatoo ah. war temps temps bi gàtt na. ah waaw gàtt la. yow ñu nga guddal sax. am nga 30 minutes tey kay da ngaa xaabaabal. waaw léegi man da da semaine pas de man yàlla daf mooy dimbali man. ouvrier la nitu chantier la. Mm-hmm. semaine passée dama demoon Podor. Mm-hmm. doon fa liggéey. bi ma ñëwee maa ngi fekk benn cérémonie ci hôpitalu Podor bi. Mm-hmm. président Racine Sy may leen plateau vingt vingt vingt millions. plateau médical. président nag man duma ko tànnal su ma ko doon tànnal dama ko daan wax ne nomeel ma Mansour Faye ñu gunge ko nekk ay liet naawam xeexal ko mu egg ci réew mi ba nekk président bu suba waaye man tànnalu ma président mais maa ngi wax ni Mansour doo Moustapha Niass tànnoo hmm? Moustapha Niass lañ jox. say tàggatoo tàggatoo ma waaw maa ngi wax ma ma hmm. Mansour na jóg taxaw. xam ne am na ay bon lieutenant yoo xamante ni mën nañ ko google wéttali ka taxawu ka ba mu egg fi mu war a egg. jërëjëf di gërëm. Sadio <laughs> ah, bu baax di gërëm waa Sénégal yëpp ak ñi may seetaan di di gërëm waa Saint-Louis di leen nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla na fa ndox mi fay wàcc bëri na trop mais ah. yàlla na nekk ndoxu barke ndoxu xéewal nawet bi yàlla na nekk njëriñu kese màggalu Tuubaa gi nu dënmal ah. yàlla na yàlla def ñu egg ka ba weesu ko si jàmm si salaam Cheikh Muntaxa yàlla yàggal ko fi Serigne Babacar si Mansour Juma maamam ji nga xamante ni dëkk sumb euh, yàlla dimbali ka kàttanal ka ba mu mm. eggale ka ci daraje yonent bi ba mu inauguré ka ñoo ngi kasi ñaanal bu baax a baax a baax ndax ay taalibeem lañu te si njabootam lañu bokk amiin si ah, gërëm sama mbokk amiin <laughs> <laughs> <laughs> El Hadj El Hadj Babacar Mbaye <laughs> ji de comité APR lew na mhm. ndar ah, ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax doon proche Mansour Faye ah waaw di ko gërëm bu baax di ko sant eh, di xam nga saa nag tey di nga na damaa bëgg waa ndar ah ak fa mu jógee aussi dafa sori yitte gi nga jox émission bi teen am na solo di nuyu waa ndar yëpp di la ñaanal yoonu jàmm mbay ah, jërëjëf jërëjëf euh, Amadou Khatab Gueye ci li ay di ñàmbat ñu koy sargal moom mbayeen bi di la ñaanal yoonu jàmm euh, jërëjëf